tontu laaj fi jot a rot ci yoonu al imaamu malikin rahimahullahu taala ak déggiinu waram xam-xam yi ñi sukkandikoo seeni wax dee laaj bu njëkk bi mbokk mi laaj ne moom <clears throat> day faral di ñaanal yaari waajuram donte ñi ngi dund bu leen di ñaanal nag yoon wi mu koy defee mooy day jàng fatiha teg ci téeméeri ixlaas mooy qul huwa allahu ahad ba muy téeméer mu yéene leen yool ba mooy laaj ndax noonu mu def baax na waaw waaw noonu mu def weesu na baax def na lu baax lool ay waajur nekkul ne buñ fi bàyyi rek lañ leen di ñaanal dañ leen ñaanal bu ñuy dund te ñaan kooku mën naa wecc eh, àq ji nga xam ne moom la doom di ameel di ameel yaari waajuram àq ju diis a diis a diis la waaye ñaan gi mën na koo wuutu mën na koo wuutu ci coobare suñu borom subhanahu wa taala kon nag euh, lépp loo man ci ñaan moo xam taala sa loxo ñaan yàlla yàlla na leen sàmm yàlla na leen def na alxuraan bi muy wax ñaan bu ñuy dund waxul rabbi irhamhuma kama rabbayaani sagira wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma xawlan karima waxfid lahuma janaha dulli min arrahma doo ko wax waxul rabbi xam dane sa yaay waajur foo tool del wàcce sa bopp maanaam del toroxlu ci seen kanam buñ la wooyee nga toog ci suuf bu ñu waxee yow nga déglu bu leen jéem a ëpp xam-xam bu leen jéem a yay bu leen jéem a wax maa am dëgg seenu naqare deret bul ko feeñal <clears throat> bàyyi leen ñu wax ba noppi rek nga laaj la ndax mën naa wax mu ne waaw nga man den lii ak lii rek laa jublu woon ak nangam lii ak lii laa ci lii ak lii laa ci jublu woon la ca nga bàyyi ak yàlla <clears throat> waaye bu leen jaay mukk maire bi daa naqari deret waaja bam mu demee ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne sama waajur daa naqari deret lool fekk waajuram wu jigéen la doon wax daa di jàmbat ba noppi yonante bi ne ko baa ndax àggagun na ci tëdd ba guddi mu di la yàqal say nelaw dee la yee mu ne ko déedéet mu ne ko yow daa nga ko def yow daa nga tëdd ba guddi say jooy tax mu dagg léppam taxaw di la jéem a nax incha allah boo feebaree du amati jàmm li fekk wéroo bu faatu teewee waajur wu jigéen rek mooy ki nga xam ne bu faatu teewee mu nangoo faatu ah, kon nag bu ñuy dund ak bu ñuy faatu yëpp nga di leen ñaanal waaye nag ñaan gi la ngay jiital mooy xorma ji alxuraan jiital mooy di leen wormaal wàcce sa bopp seen kanam loo mën ci di leen dimbali ci àdduna loo leen mën a jëndal nga di leen ko jëndal incha allah loolu moo jiitu boo noppee ñaan gi doog cee teg waaye boo yemee ci ñaan dong nag te fekk ni nga war a comporté ak ñoom defoo ko kooku day mel ne nit ki day wax loo xam du dëgg ci moom. am na loo man mooy ñi ngi dund del jëfalante ak ñoom ci lu rafet mu rafet bu meree nga jéggalu leen lenn lu ci nekk nga jaar ko fa nga ko war a jaar ñaan nga doog a ñëw wallahu aalamu bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj koo xam ne du julli fajar buñ ko waxee mu ne kuy nelaw kenn du ko bindal bàkkaar lu ëpp ci ñi wax baat yu mel noonu mooy ñi seytaane jekku ba noppi léeg-léeg nit ki day def bàkkaar ba noppi seytaane moo koy sax lam war a tontu mu ne ko ah lii daal nangam moo koy wax lam war a tontu xam nga li baax ci ab jullit mooy boo juumee buñ la waxee nga jubbanti xam ne ah man mii day wax dëgg kii di ma wax lii moom su ma julli ak su ma ñàkk julli moom wàññiwu ko dara jëriñu ko dara xëy na man dafa bëgg lu baax ci man daa bëgg ëllëg bu ma dencee ci bàmmeel ma bañ faa am jafe-jafe waaye moom doyu ko dara ndax moom mi ngi julli mi ngi def li muy war a def kon bu ñëwee naa ma jullil ak nangam kii ku ma bëgg la ndax bañ na ëllëg ma am mbugalu yowmal xiyaam kii daa bëgg bu ëllëgee bu ñii duggee àjjana ñii dugg sawar dama bëgg a gis ca ñi dugg àjjana kii daa bëgg bu ma ëllëgee bu ñuy xisaab ma bokk ci ñii gën a gaawale am xisaab loolu la ma yéene ni moom amu ci benn coobare ndax man su may julli julli lu ma ko xam nga loolu jullit bu baax boo xam ne xolam defaru na noonu la war a xalaati mais jullit bu seytaane man nag boo koy wax dara da indil tontu seytaane ah yàlla bëri na ne ah gaa yi dañuy wax ah, nangam seytaane moo koy wax loolu wa zayyana lahumu sheytaanu amalum alquran a ko wax nee na saytaare mooy jël da rafetale ah yow daal nee nañ nee nàngam soo de mu sukkandiku ci loola ba dee ñëw mu gis musiba mu gis musiba ma ko waaja doon bañ lool kon loolu de bokk ci seytaan di sa ab jullit ab jullit war na koo wattandiku war naa góorgóor ba bu juumee mu xam ne mi ngi ci njuumte waaye juum ba noppi nag di dëgër bopp di wane ne nekkuma ci njuumte koo koy def defu ko kenn bu la nit ñi nga continuer noonu mbugal ma kooku rek moo koy gis yu mel noonu bari na lool ay ay ay ay ay jullit yu yoo xam dañ koy def ala kulli haal jullit bi nga xam ne moom lañ wax ne ko yaa ngi tëdd di nelaw kenn du la bindal bàkkaar mooy ki nga xam ne loola da du coobareem maanaam julli jot na ah yàlla yàlla moo dogal ci coobareem nga yeew rek fekk jant bi fekk yeewoo ci guddi gi benn yoon kooka kenn du la bindal bàkkaar amma bu dee mën ngaa yeew wala yee nañ la wala am nga ku la yee wala mën ngaa def benn jumtukaay nga lànk bañ koo def nga ne yow yaa bëgg a xam nga xamal nga ko sa daa am ñaar am na koo xam ne moom yàlla moo dogal mu biddanti ndax ay nelaw moo man borom koo xam da nga tëdd amoo kenn ku la yee amoo benn jumtukaay ba nga biddante nga ne yeewoo benn yoon nga xam ne lii moom xam nga ne coobare yàlla rek la kooku kenn du la bindal bàkkaar am maana ki tëddi nelaw ñu yeew ko ne ko jógal julli wala moom mu yeewu ci diggante bi xam ne julli jot na wala mu mën a def ay pexe ba mën a yeew mu lànk bañ koo def nga ne moom lam jublu mooy seytaane ne ko tëddal ne ko tëddal rek yow nangam ñu bari ñu bare bari dañuy jàmbaare ci jaamu yàlla waaye ci fajar gi la leen seytaane man ndax fajar ga day neex wala mu sedd mu xalaat loolu ne ah, ndox mi ni méttee yow da ngaa sonn sa yaram waa ngi ne di metti nangam fekk boo jógoon jàpp rek loolu lépp dañ ci boo jógoon jàpp rek lépp dañ ci yow kon kooku lañuy wax ne bu fekkee daa tëddi nelaw amul benn coobare far mu yàlla yàlla mi dogal dogal mu biddanti kenn du ko bindal bàkkaar bu yeewoo day jàpp julli rek amul bàkkaar am maana ki nga xam ne am na ko ko wala sax ñu yee ko mu ne bul ma yeeti wala ñi yeeku mu tëdd xëccaan mbàjjeem sànguwaat la tu Tuubaa waxoon rek ne kooku moom bay ba mu mën a jël loxoom teg ci kaamil ni mi ngi dajale ay bàkkaar yoo xam ne moo ëpp ay montagne te mi ngi koy def bis bu set di ko dajale di te bu ca deewee dañ koy jàppee ku nuur ci bàkkaar ba faatu te kooka yàlla nañ ci yàlla musal ndax kenn du am ci moom yaakaar nañ ci yàlla musal wallahu aalamu bisimilah bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj ku am doom bëgg bu màggee mokkal alxuraan ndax am na ñaan kum ko mën a ñaanal wala lum ko war a jox amut lenn lu ko mën a garantil ne ko sa doom ji bu màggee day mokkal alxuraan loolu moo amut lu ko mën a garanti déedéet am na ay nit ñu baax <laughs> ñoo xam ne àgg nañ ci baax fu ne te mokkal nañu alxuraan bari na mokkal alxuraan am na ñaari xaaj am na xaaj boo xam ne yàlla ci boppam moo tànn ñooña ñu garde téere bi ci seeni dënn maanaam bu ca dara sikkul ñu mën koo bindaat boo demee ca daara ja booy jàng alxuraan da jàng di bindi di bind boo mokkalee am la lu ñu tuddee beqi ndongo daara yi xam nañ ko nga xam ne alxuraan yi day sax sa dënn nga mën koo bopp di ko bind te doo ko xool boo noppee ñenn ñi bind ñaari kaamil ñenn ñi ñett beqi robo bokk beqi nisif lu ne da ko def tari juróom juróom juróom ñaar lu ne nga def ko ngir mu sax ñooñu yàlla moo leen tànn ngir ñu yanu téeréem bi dégg nga am na nag sabab sabab bi nag mooy góorgóorlu ga ak jàng ga ak ñaan sa borom mu dimbale la ci ñaan sa borom mu dimbale ci as bokk na ci xasida googu Sëñ Tuubaa def euh, te tënki ko alxuraan mooy asaluka allahuma an tuyassira xifdal kitaabi lii bi jaahi man sara suñ borom maa ngi lay ñaan nga yombal ci man mokkal alxuraan xëy na ku am xasida googu di ko jàng ba noppi yéen a yool ba sa doom wala boog maanaam ñaan gi nga féetal ko sa doom ne suñ borom yàlla na nga yombal sama doom ji mu mokkal waaye daal amut lu ñu lu ñu bind wala nanga déedéet lu dul ñaan sa borom amul secret sekke bi daal benn la mooy ñaan ab jaam nga am nga borom boo xam ne mën na lépp toogal ñaan sama doom ji maa la ñaan yàlla na ko boole ci ñii wattu sa téere bi ci seen dënn di ko baama ko baamuwaat lépp loo dégg ñu ne day tax ak ñaan nangu ngay def loola te ko ñaan waaye nag amuñ nag lu ñaan boo ko bindee lii faaw dana mokkal wala faaw dana def nangam eh, déedéet lépp day aju ci coobare suñ bor ak sa sabab yow wallahu aalam laaj bi ci tege mbokk mi laaj ne ndax imaam bu kàbbaree armal bala moo tàmbalee jàng daa war a taxaw ab diggante maanaam daa war na tekk ab diggante wala dafa am ñaan gu fi am ndax daa am imaam bu koy jiite boo xam ne heure bu kàbbaree day naan tekk ab diggante doo ko tàmbali jàng kooko day ñaan daa am ñaan gu muy doxalee foofa am na ñaan goo xam ne jëlee nañ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ci hadis mooy ñaan goo xam ne day ñaan am na ay ay xeet yu bari euh, def naa naqini min alxataaya kama yunaqa asawbul abyadu min euh, min danas bari na ci waaye loolu nag yoon al imam malik bii may tontoo sa laaj ñoom sukkandikuñ ci loolu soo dee kon bu fekkee imam bana daal sukkandikoo ci beneen mazhab mooy waral mooy def loola waaye imam bi la muy def lu wér la lu wér la ci diina loola ayut jàppal na la muy def daal ci xam-xam bu wér la ko teg am na xadis bu jorot waaye bu ci yoon al imam malik moom ñaan ci sujjóot lay doon wala bo boo taayaa ju mujj boo defee attahiyaatu ba def salaatu ala nabi bala ngaa sëlmal nga ñaan kon nag yow moom booy ñaan del ñaane foofa bu dee ci yoonu al imam malik ngay jaamoo yàlla imam ba la muy def nag xam na ko mi ngi sukkandikoo ci beneen mësab wala mu sukkandikoo xadis ba xëy na borom xam-xam la kon la muy def lu wér la wallahu aalam bismillah mu dee laaju mbokk mi jotee ga mu ne borom ñeenti ngiir yi al imam abu xanifata al imam malik al imam shafii al imaam Ahmad Ahmad ibnu Hanbal lañ koy wax ndax dañ fay fekkoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ndax ñoom dañ fay fekkante tontu li mooy déedéet kenn fekku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Hanifa mi ci magoon moom moo fi fekk saxaaba nee ñu saxaaba yi mu a génn àdduna moom fekk na leen fi am naa nag ak wuute ndax euh, tabarkàlla fekk na fi Anas fekk na fi nangam. waaye daal abu xanifa la rek waxuma la yonante bi waaye saxaaba rek saxaaba bu doon dund ak yonante rek kenn rek la ñuy sikk sàkk moo ko ci fekk wala déet muy kaca mag muy abu xanifa ta dégg nga gannaaw ba imam malik gannaaw ba imam shafii gannaaw imam imam ahmad radiallahu taala anhum yàlla yàlla fay leen ci liggéey bu réy bi ñu def ci diine léegi nag lu tax ñoom fekkuñu fi yonent bi sallallahu alayhi wa ak saxaaba yi xëy na nit mën naa laaj mën naa kii laaj sax man naa am loolu la jublu wóoruma waaye ma tontu loolu bu fekkee loolu la ci jublu waaye nag leeralu ko kon kii laaj war ngaa leeral li nga bëgg a laaj lépp ba mat ndax mën naa ñu waat ne waa kon lu tax nangam ñu bari dañuy juum mbokk mi de laaj sax wax na ko nee na lu tax eh, maanaam eh, ñoo ñuy sukkandikoo ci ñoom déedéet kenn sukkandikool ci ñoom ci yàlla ak yonent bi rek la ñuy sukkandiku ñàkk xam nag léeg-léeg day waral lu bari kenn sukkandikul ci imam Malik wala nangam déedéet <laughs> ci yonent bi lañuy ñuy sukkandiku daa fekk moom moo la jottali wax ji moom moo la jottali wax ji bu fekkoon ne sëñ Muntaxa daa yónnee sa palaas ndawal sëñ muntaxaa ñëw fa am ay ndigal yu mu lay jox ci looy sukkandiku lim lay wax moom moom lim lay wax ci moom ngay sukkandiku waaye ca dëgg-dëgg sukkandikoo ci moom ndigalul ndigalul sëñ Muntaxa la moom da la ko indil rek. ñoom dañoo jàmbaare ba nga xam ne dégg giñ ñu dégg alxuraan ak xaddis yonante bi gëstu nañ ko dem ba seetantal ko ba seet ballu ci ay at def istinbataat yonante bi de am na xale bu bu masa fopp ay aysatu maanaam ci misaal imam malik dafay fekk dongay saxaaba yi la fa fekk ñoom dongay saxaaba yi dongay saxaaba yi ci misaal mu ne ah naafi dongab saxaaba la woon nee na ma saxaaba bu ñuy tuddee abdullahi ibnu omar nee na ko yonent bi nee na xam nga li lu wóor la <laughs> sëñ Muntaxa nee na ma sëriñ Saalihu nee na ko sëñ Tuba nee na xam nga lool leer na waaye nag sëñ Muntaxa moo la ko jottali yow fekkoo fi sëñ Tuba xam nga loolu lu wér la léegi nag xissa ba muy nettali mooy indi ab atte moom lañ istin istinbaataat ci misaal ñoo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day ci misaal ñu ne la ñu laaj imam Malik ne ko waaw bu fekkee ne ab gone dafa tuur ndox ci sama yére yi ndax damaa war a bàyyi noonu rek ne lii sawum gone la dara nekku ci wala ndax lu ma war a def mu ne Imam Malik tontu la ne la déedéet da nga koo war a raxas da ngaa war a wut ndox nga raxas ko xam nga loolu waxi Imam Malik la Imam Malik foo teg sa wax ji mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ koo andil gone gone ka tuur ko ndox mu ne Sayyidina Aïcha andil ma ndox ñu andil ko ndox mu jaarala ndox ma ca fañ ko fañ ko tuur ndox atte baa ngi noonu kon Imam Malik loolu la la génneel waaye loolu xa dëgg-dëgg nag waxee yonante bi la sallallahu alayhi wa sallam wala ñu ne imaam Malik bu fekkee ne damaa julli julli ñaari rakka daal di sëlmal gannaaw ba ma xam ne damaa jum ma jóg mottali ko su ma noppee lu may def mu ne dangay def da ngay def baada salaam nga ne ko foo ko teg mu ne yonante bi sallallahu lu mel nii nga laaj da koo daloon moom waaye ba ko dalee nii la ko defaree woon <laughs> lii rek la waaye kenn toppul imaam ci boppam. imam malik ay jëfi bopp li nga xam ne moom jëfi boppam la ak waa këram loolu xam nga kenn du ko coree ko naa def nii soxnaam wala mas naa wax ni déedéet duñ la wax loolu de imam na ci diw diw jëlee ci bi kooka ne nangam loolu rek loolu rek moo tax ñu di leen eh, tabarakàllah di taawoo ci ñoom ndigali yàlla ak tere yàlla yi nga te bàyyi ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak aaya alquran yi loolu rek moo ko waral léeg-léeg nag wuute gi li koy waral ci misaal wuute gi li koy waral nag mooy léeg-léeg déggiinu xaddis booba xam nga léeg-léeg jëf day am am am am noo ko mën a déggee ndax jëf mën naa am nii ci kaw te fekk am ngi am nii ci kaw doo ko déggee noona doo ko déggee ci zaahir ci misaal nga dem siyaare ji sëñ Saalihu radiyallahu anhu xam naa nag jërutoon sax ñuy dugg ci yu xóoti yi moom xam naa ñuy yëngulu ci wàllu xadis li ñu tudde mustalahul xadis tabaarakallah boo jàngee seen téere danañ la wax xadis yi seen daraja yi xasan daif euh, saxiix euh, dégg nga euh, shahir dégg nga musnad muttasil aziz dégg nga bari na waaw ma jox la benn misaal nga dem sëñ saaliw ak bëkk ndégee teel teel ca bunt ba gannaaw ba ñu nga yàgg fa lool nga doog a dugg nga dem sëñ saaliw ne ko ah, ma de sa gaay dañ maa téye téye bu sëñ Saliou ah ñoom de def nañ lu ëpp xanaa xamuñ ne euh, yow yaa moom kër gi <laughs> est-ce que da jàpp ca dëgg-dëgg na yaa moom kër sëñ Saliou déedéet moo ne ci saayir la wax ne la yaa kër gi waaye da xam ne li la bëgg a wax rek mooy yow bi day njaboot nga ci kër gi bokk nga ci kër gi euh, maanaam dañ laa considéré loolu la la bëgg a wax loolu mooy dégg-dégg léeg ci biir dégg-dégg nag yu mel noona da cay da cay am wala boog lan wala yonente bi sallallahu alayhi am saxaaba bu ne yonente bi fekk naa mu def nangam kooku nettali ko imam malik imam malik jàpp loola am beneen saxaaba bu nettali imam Saafi ne ko man fekk naa yoon def nangam te ñaari nettali bokkuñu loolu yonent bi daa am yoo xam ne bi ñu koy doog yoon yónni am na yu mu defoon te ginnaaw bi mujjul def loola daa mujjoon bàyyi loola ne kii ne man taxaw naa ci ginnaaw yonent bi saa sam mu jiite ma julli musu mu koo dégg mu wax alha mu wax bismillahi rahmaani rahim kenn man de mas yonent bi mas na maa jiite wax bismillahi rahmaani loo ci man kon ñaari yëpp moo tax ñu la boo ci tànn baax na boo defee li kee wax imam Shafii wax alhamdulilah am na cosaan boo defee li imam Malik wax am na cosaan wallahu taala alamu sawaaba bisimilah bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj mbokk mi di laaj nag ñeenti laaj la laaj loola ñu bàyyiloo ko ci xel ne ko ñaari laaj dong lañ sañ a laaj waaw incha allah ñetti laaj lañ mayoon ginnaaw bi comme dañoo nekk ci tukki bi ñu ne nañ ko wàññi ba nekk ñaar ñeenti laaj la laaj daa def ñaari vocal vocal bu ñu mu def ci ñaari laaj kon ñu tontu yenn ñaari rek te boo ëllëgee mu bàyyi ci xel nag bu dee laaj bu njëkk bi daa wax ne ngëneelul yoor yoor ngëneelul yoor yoor day la ca jiitu mooy di ko def te yàlla tax di ko def ta yàlla rek tax jaamu yàlla gi gën a rëy ci jaamu yàlla yi mooy li def te yàlla rek tax wa min annaasi man yabud wa min annaasi man xarf loolu mat naa wattandiku koo xam day jaamoo yàlla intérêt intérêt maanaam moom day xaar bañ ne ñu bari dañ koy def fi mu toll nii ñu bari jaamu yàlla gi ñu sawar mooy tey jii boo leen partage woon dara ne kuy def nangam da am nangam danga am ci daal di sawar mooy dañuy commerce yàlla dañuy commerce yàlla waaye tey jii boo kii woon ne jàng alxuraan ne baax na rek ci yàlla kenn du ko jàng waaye boo ca wékkee dara na ne ku ko def da am xaalis tey ñëpp tey di ko def ne la yónnee ma vidéo bi defal ma nangam lool mooy jaamu yàlla commerce nga xam ne daal jaamu ki day mel ne a ah boo ko dee def ngir yàlla des na dëgg dëgg jaamu yàlla nag mooy di ko def te yàlla rek tax damay jaamu yàlla ngir màggam ga damay jaamu yàlla ngir damaa xam ne yeyoo na rek man man ab jaamam la la naa Ali waxoon ne man jaamuma yàlla ngir bëgg àjjana wala ngir ragal sawara ndax ñoom ay mbindeef lañ maa ngi ñoom ñooyam man seen ki bind laa soxla xanaa nettali nañ histoire bi mel noonu ci Cheikh Ibrahima Fall biñ ko biñ rëddee rëdd wa ne ku ko jéggi dem sawar ak yu mel noonu mu ñëw ne moom sawar ak àjjana yitteelu ko wax na dëgg ndax ñoom ñaar ay mbindeef lañu loolu mooy rëy bët mooy rëy bët ñii ay mbindeef lañu bal yow sax yaa leen gën yaa leen gën ndax yow yaa ngi bokk ak bind yonante bi te yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën lépp kon la ca dara gënu caa rëy mooy nga dégg ñu yonante bi moo ko digle loolu doy na sëkk ngëneel jëru sax di ci séentu beneen ngëneel loolu nag léeg mu am ay tarixi baat bokk na ca ngëneel ya la bokk benn ngëneel bi rek ñu tudd ko mooy wax gi Eh, wax ne bu ëllëgee yomal xiyaam day jëlal avocat nit ki képp ku ko fonk ko ko fonk te man koo matal bu yomal xiyaamee day wax suñu borom kii day man mii di yoor yoor sa waa jii dey sa jaam bii wax dëgg daana ma fonk lool di ma war ma heure bu heure bu jotee mu julli man noonu mu ma fonke woon maa ngi lay ñaan ci sax mbaax yàlla nag ma ci tin nga jéggal ko bañ a xool daraam nee suñu borom nangu ñaan kooga loolu bokk na ci bokk na ci ngëneeli waaye yow mi koy def fas ci def ko ngir jëmmi yàlla rek bu dee ñaari laaj mu ne menn mbokk mu faatu amoon yaari bitik muy laaj ne ba léegi miiras a guñ ko waaw loolu dañ koy miiras rek <laughs> loolu moom dañ koy miiras miiraskat bi nag bu ñëwee dana xam ni muy def mënuñoo mënumaa nekk di toon naa bitik bi dañ koy def nii déedéet loolu boo ko defee mën naa nekk njom ndax kii miiras mën naa bañ a def noonu waa waa waa njaboot gi mën nañoo bañ a bëgg loolu mën nañoo déggoo ci leneen wala kulli xaal dañ koy miiras miiras kat bi nag bu ñëwee moom dana xam nuñ koy miirase jërta laaj mën nañ koo jaay mën nañ koo bajee jaay kenn mën na koo jënd ci mbokk yi euh, amul nag xaaj ak seen bitig bi daa jëmoon ci kër geeg daa jëmoon loolu mu amu ci solo waaw lu mu ci mën a doon rek dañ koy miiras ña war a donn buñ ñëwee laaj kii ñu fi bàyyi bu nee nangam ak nangam ki miiras dana xam ne diw ak diw ak diw rek ñoo war a bokk ci miiras mi bu noppee nag dana xam moom ni muy jaayee place bi ndax kenn njaboot gi ndax daa ko bëgg bu ko mënee jënd mu jënd ko incha allah buñ noppee ñu jël xaalis ba miiras ko noonu rek lañ koy doxalee wallahu aalamu bismillah mu dee laaju mbokk mi muy laaj kuy siyaare ci ab sëriñam wala muy dugg ci lu mel ne juma wala barab yu sell yooyu wala ay armeel wala yu mel noonu moom sax li muy laaj moom mooy siyaare ab sëriñ wala dugg ci juma ban comportement la war a amee waaye xam naa day gudd <clears throat> loolu xam naa lu gudd la waaye liñ la ci mën a tënk rek mooy yar ak teggin moo tënk lépp la yonent ba jàngaloon saxaaba yi bu ngeen toogee fi moom wala bokk la yàlla jàngaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa tarfacuu aswaatakum fawqa nabi wala tajharuu lahu bilqawl ka jahri bacdikum li bacd an taxbata an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun mooy bañ di yuux di wax ca kaw ne tekk ànd ak yar ak teggin bu mën a am njàpp nga yóbbaale ko ci la bokk boo àggee nga toog na teg bu dee lu mel ne barabu nit ku baax nga bañ nekk di raay miir ba ak yu mel noonu mhm. boo àggee na tekk toog ñaanal ka fa tëdd te ñaan yàlla ci barkeem ndax barab bu ñu nangoo ñaan la waaye nag bul ñaan ka fa tëdd moom ci boppam déedéet yàlla rek la ñuy ñaan ñu bari dañuy fàttee ñaanal ka fa tëdd ndax dañuy defe nit ku baax la yëfam baax na ba noppi yonent bi sallallahu alayhi moom la yëfam gën a baax te ba léegi ñu ngi koy ñaanal boo tuddee yonent bi da nga wax sallallahu alayhi wa sallam boo tuddee saxaaba yi da nga wax radiyallahu anhum te saxaaba yàlla ci boppam nee na gërëm naa leen te teewul ba léegi yaa ngi naa yàlla yàlla na nga leen dolli kon nag ñaanal ka fa tëdd loo man boo noppee nga ñaan yàlla ci barkeeb ka ka fa tëdd incha allahu rabbi moom daal yar ak teggin xëy na lii tem la boo xam ne bu ñu war a waxtaane la bu gudd la mu a su koo tënk wallahu taala a'lamu sawaaba haasa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala Eh, wa sahabatihi ajmain li mooy li fi jotoon a ci ay laaj lépp lu ci yóbbu ci suñ borom la lu ci jubul nag ci gàtt xam-xam rek la ak matatik doomu aadama wassalaamu aleykum wa rahmatullah bu dee laaju mbokk mi mu ne bu fekkee dafa dem seen dëkk war andi kenn ci ay soxnaam ci misaal mu dëkk Thiès wala mu dëkk Ziguinchor am fa ñaari soxna ba demee nag Ziguinchor mu war a indi kenn ki Ndakaaru fi muy liggéeyee muy laaj kon ndax mën naa féete kenn ka rek déedéet da ngay ay ayloog ñoom nanga baaxoo ay ayloog ñoom da ngay ay ayloog ñoom na nga baaxoo ay ayloo ak ñoom boo demee ka nga bëgg yóbbu nag nga yóbbu ko te boo ko yóbboo nag bu fekkee ne da nga ko yóbbu rek ngir mu nekk ngir nekk ak moom kon faaw da ngaa war a yemale bu fa amee ñaari weer daa war ñëwaat ki ci des dem bu fekkee loola mën naa nekk. waaw bu dee mën naa nekk bu fa amee ñaari weer wala loo xam daal dañu koy sartante bu fa amee weer ah, sama benn xarit yàlla ko yàlla dolli weer sëñ Ibrahima dana koy def bu yóbbee soxna si bu fa amee juróom benn weer kooka dëppaat dem loolu ak maandu dëgg la te ñu bari ñu ngi ciy mooy yàlla nag góor ñu bari dañuy àgg yóbbu kenn ka toog xam ne waxuma la sax yóbbu ka ca waaye dañuy toog mel ne foofu lañ dëkk léegi léeg ñu ñëw ñaari fan rek gaaw dem loolu bàkkaar bu rëy kon soxna yi dañoo war a yem képp ci ay li fekk mi ngi mën a nekk bu fekkee ca des nag daa am njaboot ne la man de xam naa dem Dakar du ma yomb nangam kon da ngay fexe ba heure boo ko mënee rek daggal sa baas dem bul wax ne sama xaalis bi déedéet xaalis lu muy jariñ olof yi ñoo ko wax du faj dee gàcce lay faj lool rek la. am nga xaalis mën nga koo dag xam nga ne mën nga ko daggal paas dem fa bu àggee ñaari fan doo ko ñëwaat bu fekkee mënoo ko nga xool la nga mën ta seedeloo yàlla ne yàlla de yàlla seede na ne lii laa mën nga def loola boo ko deful rek yaa ngi lekk àq yaa ngi eh, yaa ngi koy ameel xaq bu ëllëgee yomal xëy am da lay yàggal ca taxawaay ba rek yàlla na ci yàlla musal wallahu aalam laaj bi ci tege mbokk mi di laaj koo xam ne dafa ñëw fekk moo mbokkum jullitam di labat jigéen ngir bëgg koo takk moom mu ñëw jaay doole wala mu jaay am a fexe ba foqarti ndaw soosa ko def na lu xaraam lu yonente bi sallallahu alayhi wasallam tere wala yaxtubu a ala xitbati axihi bu kenn ñëw fekk kuy bëgganteeg jigéen nga ñëw di ca dugg danga koy bàyyi rek naka noonu bu kenn ñëw fekk koy waxaale am njaay nga ñëw di ca dugg dangay ngay bàyyi ba xam fu ñuy mujjee loolu nag borom bi saala nee na Euh, bu fekkee ne waxaale ba wala labat ga dafa sori maanaam fekk nga am njóobeen di labat soxna bu fekkee da nga koo fekk mu wax ko soxna si ba soxna si wax ko ay mbokk yi ba ñuy xool di organiser xool nu ñu def ba waaj a jàpp bés wala yu mel noonu nga ñëw kooku mu xaraam na kenn di ñëw di ci dugg da ngay bàyyi ba xam rek bu yàlla dogalee jubóowuñ nag nga xam ne foofa jeex na nga doog a dugg waaye xaram na nga di ca dugg bu dee ci yoon alimam Malik moom bu ñu ko yëgee sax dañuy tas sëb sëy boo ñëwee jaay doole takk ko li fekk jotagoo séq ak jigéen dañuy tas sëy ba jox ko ku njëkk ga loolu nag faaw kon ndaw saak yooyu ànd ca incha allah bu fekkee nag njóobeen bi daa ñëw rek di wax soxlaam eh, wax jigéen gi laa soxla eh, mu toog nga toog nga wax ko ma ne su sañoon jël la soxna nangam nangam jigéen ñi ne dégg naa ko lool moom boo ñëwee mën ngaa wax sa soxla loolu moom bu mu la tee wax sa soxla yow mën ngaa ñëw ne jigéen ji may dama bëgg nanga su ko de jigéen ji mën a tànn mën a xool ba xam man a tànn kan moo ko ca doy ndax booba moom te te maanaam yëf yi demagul fenn naka noonu jaaykat bi ñëw tabaarkàlla wa benn waaye ñëw ne ko saag bi ñaata jar bu la neexee bu la neexee ne ko saag bi ñaata jar amaa bu ne ko saag bi ñaata lay jar mu ne ko 2000 francs mu ne ko 1500 ñu tàmbalee ñu tàmbalee waxaale kooku mu xaraam na nga di ci dugg da bàyyi ba xam fu muy mujj. wallahu taala a'lamu sawaaba bu dee laaju mbokk mi di laaj wàllu impôt euh, ne day ci benn entreprise waaye am na ñoo xam ne bu ñu yeexee fay impôt daam àllamaane ñu leen di fayloo àllamaane ñu di ko séddiwaat laaj boobu moom na ma ko jéggal ndax dafa bëri yoo war a xam ci biir te yooyu xam na explication yi ak di ko ko laajaat dana xaw a jafe kooku na dem ci borom xam-xam na demal boppam ba ci borom xam-xam mu leerlu masala bi li feeg mu laaj borom xam-xam nag na xam ne na jàpp ne loolu xaraam na ci moom ba noppi parce que boo boo yoree alal joo xam ne xamoo ndax daggan na wala dëgganut amugoo ci lu leer di ko gëstu jàppal ne xaraam na anataan na xam ne bu duggee sa nga saraxe ko wala nga def ko foo xam ne julli ñëpp ñoo koy bokk hôpital bu ñuy tabax wala ay euh, jirim yoo xam ne dañoo ñàkk seen waajur heure bu ñëwee nga dugal ko foofa léegi nag nga dem ci borom xam nga toog mu toog lim la bëgg a laaj daa yoo xam ne mëneesu koo waxan waxante nii ci laaj ñoto déedéet da ngay dem ba ci borom xam mu toog su waree moom am na information yu mu laaj lu waral loolu lu waral lii léegi nii bu demee nii nu may demee nga di ko tont di ko tont ba keroog mu am ay preuve moo tax am na laaj yoo xam ne da ciy gaaw a day nekk risque kon kooka na dem ci borom xam-xam mu toog mu wax ko mboolem information yi ci ajo ta na dem ci borom xam-xam bu wér bu ragal yàlla wallahu aalam bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wala subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim fas yéene dimbali ko sunu borom subhaanahu wa ci jéem a tontu laaj fi jotorot ci yoon al imaam Maalik rahimahullahu taala bu dee laaj bu njëkk bi mbokk mi laaj ku rendi xarum tabaskeem ba noppi wala mu daanaka dawal paaka ba nga xam daal li olof yi tudde bay bay na mbuus mënta dellu ginnaaw doo ko yëg ne xaram mam jëndoon kat ndekete matul tabaski maanaam gis ci ayib am na lu nekk ci xar mi loo xam dañoo waxoon ne xaram moo xam ne am na lii du mat tabaski mooy laaj nu muy def ah na muy def da xanaa mooy continuer rek ray bu noppee xam ne am na ndawal waaye bu dee ci sariya moom amul tabaski tabaski moom ngir nga am ko da ngay xool mboolem lañ la sant nga def ko li fekk defoo moo xam dangaa juum moo xam kala ko jaay da koo seetlut ak nu mën a demee rek dañuy jàpp ne mu amu am tabaski léegi nag mu des yéene ja suñ borom dana fay yéene. sallallahu alayhi wa sallam nee nee na woon it niyatul niyatul mu'mini ablahu min amali kon su boobaa kooka danañ rafet njort ne suñ borom dana koon nangul ngir yéenam ju rafet waaye bu dee la sariixa santaane woon mooy jënd xarum tabaski moo xam ne charte ya daje na nga ko lool moom difu ko su boobaa kon dañuy jàpp ne ndawal rek lay am insha allahu rabbi wallahu a'lamu bu dee nag ka ko jaayoon da koo nax loolu moom leneen la day dem toppi ko ñoo xam nu ñuy lijjante te moo tax kuy jënd xar ngir tabaski da nga ko war a xool ndax wax nañ la ay sart kon ku jënd am xar nga naan seetlu ma ko day mel ne yaa defut la la war ndax jaaykat moom day ñëw ne xar maa ngi nii nga tiim xool-xool kon nag bu béjjën ba dammoo wala geen ba dagg yow yaa ci bàyyiwutoon xel kon day mel ne jaaykat bi defu la dara ndax yor nga say bët di xool wallahu aalam bu dee ñaaree laaj bi mbokk mi laaj nga indi sam xar meneen xar tëb ko nga fay ndax dagan na tontu li mooy waaw waaye nag buñ ci sart benn sart moom daal dama bëgg indi sama fas wi wala sama xar mi wala giléem gi sa giléem gu góor giléem gu góor gi tëbal ma ko mun laa ah, kon da nga may jox juróomi junni nga ne waaw d'accord naa loola moom dagat na incha allah defal ma nangam ba fay la amaa na duñ ca sart nag naa ko bala ma laa fay faaw giléem doom jëmi jur day judd ba mel nii déedéet loolu duñ ko nangu ndax loola moom mbirum yàlla la kenn du ci sartante loola xarar la kenn xamu ci dara mën na koo tëb tëb gi sax mën naa bañ a jàpp mën na koo tëb doom juddu te doom juddu nuru sax na nga ko bëggee woon déedéet moo tax la ngeen sartonte rek waxante mooy daal na ko tëb nañoo daal na ko tëb benn yoon wala ñaari yoon wala nangam ma fay la nangam loolu dagan na. bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj lépp crédit ci téléphone yi loolu yàgg nañ koo tontu wax nañ ne boroom xam-xam yi nee nañ dagan na incha allah ñu bari dañ koy jaawaleeg lépp xaalis bokkuñu ñu bari dañ koy léeg sax nit maa dégg nga tontu ci nanga waaye léegi comme lépp xaalis déedéet nurawut dañ ciy juum lépp crédit moom leneen la crédit du xaalis aw tuur la rek buñ ne laa 1000 la ci crédit loolu du 1000 ay minutes la yooyu wootee ay minutes lekk ka la koy yónnee nag amee ay charte ni ko yónnee gëm la koy yónnee am lu mu ci dagg wala lu mën a doon loolu moom meneen mbir la wax laa ku leexal borom xam-xam biñ ko gësee gëstoo nee ñu loolu dagan na dara néew ci nurawut ak lépp xaalis ndax bu fekkoon da ngaa dem ci orange ñu yëkkati aw 1000 francs jox la ne la booy fay da ngay fay 1100 francs kon mu xaraam waaye nag ay minute lañ la lebal incha allah lebale la ko ci njëgu nangam nga d'accord loolu moom daggan na mais mel ku yëkkati ab tubay lebal la ko incha allah lebale ko 1300 wala nangam moo xam tubay ba mil francs lay jar wala lu man a doon waaye la ngeen d'accord nga ne ko lii laay fay su may fay incha allah loola dagan na wallahu aalam bu dee laaj bi ci tegi mbokk mi laaj dañ doon miiras am. koo xam ne mooy mag ci doom yi mu daal di ñu jaay ko dara mu daal koy lepp ci misaal ñu ne dañuy jaay kër gi 3 millions euh, mu joxe un million ne de feek at ma fay 2 millions yi ñu dem at fayut mbokk mi laaj ndax dañuy tas miraas mi wala nu ñuy def déedéet miraas moom miraas nañ ba noppi yéene ko lebal foofu nag miraaskat yi ñoo war a bàyyi xel bu baax a baax ñu baree baree bari fas yéene wu fay boru miraas. loolu nag lu garaaw la ndax alxuraan li mu wax mooy dafa mel nee na ñi koy def dafa mel dañoo jël sawara ci boppam di ko lekk ñooñu moom ko ne xam na ne dëgg yàlla la leen di xaar bu leen yàlla yërëmul musiba la ñu bari ñi nga tëdd ci àqi jàmbur rawatina ay jirim loolu miiras yi ñoo ko war a bañ boo ñëwee di miiras amuñ lu dul kër gi njekk-jekk ne taaw bi koy jënd nañ na ko kon fayal xaalis bu nee awma awma xaalis ñu ne ah, ñii daa am njaboot gu ci bokk te dañoo soxla seen xaalis te mënuñoo xaar. wala boog nga ne ko ah, loolu day day loxo day nekk ci loxol njaboot gi su ko dee njaboot gi seeni i nijaay ak seeni i baay yu ndaw kenn ku nekk am ku la teewal ñu waxtaan ba xam est-ce que nangu ngeen ko ko lebal ko ko fekkee ñoom nee nañ garaawut ñun ñoo ko ko lebal ñu xam ne seen àq la waaye bala ñu faa jóge ñu bind wut ay témoin bu matee woo police sax wala kenn mu te wala chef de quartier mu toog ñu ne ko kañ ngay fay mu bind ñu bind mu leer naññ wala boog ñu ne ko buñ demee ba date bi nga wax ne moom ngay fay at mi nga wax te fayoo police ngi nii chef de quartier ngi nii su boobaa kon njaay mi dañ koy dindi subaa kon dañ koy jël jaay ko xool li sa wàll ñu jox la mu d'accord ne waaw waaye du ñëw rek ñu ne ko waa lebal nañ ko mu jeex mu dem yoonu xam nga du fay ñu bari ñu ngi tëdd ci fi jàmbur ay jirim amuñ ndeysaan seen baay faatu rek amuñ fuñ dëkk te moo ne seen baay bàyyi woon na fi kër guñ mën a dëkk bàyyi woon na fi nangam loo xam ne buñ ko miiraasoon ci dëgg-dëgg ñoom danañ ci mën a louer appartement wala danañ mën am kër ci eh, yenn dëkk yi waaye duñ ko def kon fii moom miiras amatu fi li fi am mooy miiras nañ ba noppi kee nee na jënd na foofa la ña koy miiras day saar sama benn sëriñ bu baax sëriñ Ousmane Bakke xafidahu bu demee di miiras ba yu mel nii am day laaj njaboot gi ba ñu d'accord mu wax kii leb na ko kañ ngay fay wut këyit mbooloo mi teew bu ne la trois ci weeru nangam ngay fay sëñ Ousmane moomee danan ko mooy ki jàngale bind miiras yi fi daa jàll danan njaboot gi kii nee na moo leb nangam 3 millions la nee nañ feeg ñaari weer la koy feeg ñaari weer nag le 25 ci weeru nangam lay toll bu jotee danaa ñëwaat danañ dana toogaat ñun ñi yëpp nañ toogaat mu fay xaalis bi bu ko fayee ñu miiras ko wala ñu séddale ko seen borom waaye jekk-jekk rek ne waaw taw bee jënd kenn kenn du sañ a jënd dañuy yegg taw bee jënd te ñëpp a sañ jënd bu taw bi ne bëgg naa oto bi caat mi juddu barki démb ki ko teewale sañ naa wax ne caat mi bëgg na oto bi buñ ko mën a bàyyante baax na buñ ko mënta bàyyi ñu jaay ko keneen. naka noonu mën nañ ne taaw bi dëgg la mën nañ laa jaay kër gi waaye dañ koy fay léegi boo ko mënta fay léegi déedéet mënta nekk kon nañ jaay keneen waaye duñ ne da yow dañ koy jaay far force ba nag fayut déedéet loolu njuum teg ñu bare bare ci ñi miraas la ak ñi nga xam ne ñoo bëgg lekk àqi doomu aadama yàlla nañ ci yàlla musal wallahu taala alamu sawaaba hasa wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi tahirin tayibin ajmain wasalaamu aleykum wa rahmatullah wallahu taala alamu bisawaab wa ilayhi almarji walmaab